ama ñu ngi lay nuyu di bokk ak yow bi nga xam ne dal na ci monde làmb yëpp muy génn àdduna Moussa Dioum yan témoignage nga ñu mën a defal ci Moussa Dioum ah, gannaaw bu ñu sant yàlla di si Yonent bi di gërëm suñu balaax ñëpp di balaax ñëpp di nag koor gi ñu yàlla na ko yàlla suñu borom nangul suñu bàkkaar di kii di yàlla yërëm ko te xar ko àjjana mm-hmm. waaw lu ma ku baax la Moussa maamoom yàgg nañ mm-hmm. Moussa dama bokk si ñu ko jàngal bëre mun naa seen maa ko jàngal bëre mm. waaw Moussa dafa bokk si ñu jaar suma loxo mm. mais yar laa xam ci moom ba pare tam nekk ni bu am kersa xam nga ba pare nekk ni ku baax waaw nekk ni tamit aussi ku am diine waaw vraiment Moussa moom bu ma déggee nii gaañoon saa fee dafa ma dépassé waaw parce que benn a ci oto mais oto bi taxaw na lu yàgg loo xam ne nii bon dama absenté waaw balaa ko mujj wax na moom na Moussa mel na mënuma si Moussa waaw vraiment mu nekk tiis boo xam ne maa ngi koy Sénégal yëpp jaale famille aussi waaw sa daal nit ku baax la. feebaram yëgul nga non yëguma ko woon nag quoi. Hmm. yëguma ko woon mais vraiment waxtaan ci ne màkkat bi léegi ñu ci ñu waxtaan mais xëy na. xëy na ko yàlla moo ko dogal rek mais lii ma kii moom vraiment gisuñu sax ni war na mën a xam waaw war na war na mën a rey sax picc mais yàlla moom bu soxlaa moom xam nga ñëpp ñàkk mu ngi tëdd dara doona sax a mën fàttaliku ci moom boo xamante ne doo ko fàttali ci Moussa Diouf non ma gën a fàttaliku ci moom mooy su ma Moussa contact ba pare hmm. daf naa ma ñëwal may ma ñaari contact wala ñett waaw ba pare ku mënoon mbalak la ku mënoon reer mais gis naa ni moom daal vraiment suñu misaa contact ba pare a nooy def day jéem a pétoog man ñaaru la ñett ba pare bëri bi day nekk ay bëri ay ay mbalak waaw ay la ñu noonu waaw nit kaf la nag waaw mën a mbalak xam lan nga wax nawle yi nga xamante ne ci làmb ji la ñu nekk benn tàkkusaan moo leen boole mais donte bu yi amee yéen ñëpp dañuy gis ngeen am ci taxawaay bu rafet a lan ngay wax ñoom. waaw ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. jàmbaar lii liggéey la rek du ñu ay ennemis. Hmm. sport la fo la kon ni sport yi nekkee foo fo may wax tout le rek sport moom su boolewul warut a tàqale dafa war a boole parce que Sénégal benn bokk la ñëpp ñoo bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi voilà internet bi temps yi gis nga li ci xew yàqante beeg waxante lu ñaaw bi te lépp ci fii lay mujj ban message nga leen di lancé yàgg naa lancé message boobu mm-hmm. xanaa kay dañ ci dañ ci cofaat tuuti rek que mm-hmm. tey nit ki boo ko yàqee loo ci gañee mm-hmm. doo ci gañee dara tout le temps dama koy wax voilà góor yàlla sax bañ da nga war a bañ sa moroomu góor yàlla problème am ngeen toog ngay bëgg a wane ni maa nekk ci dëgg kersa boobu sax war nga ko am di ko defetal yow nga ne yow boo ne yaa nekk si dëgg hmm. waaw loolu sax nit a a bañal nitam hmm. xam nga te yàlla moo sàkk doomu aadama ci ñàkk mët hmm. nit ku du juum amul boo deful erreur bu ndaw nag waruñu def leen lu ñu suturalante waaw ku nekk ñu suturaal sa morom voilà loolu daal laa ci gis vraiment léegi gars yi gis naa ni guerre média la ñuy def waaw yàq nit amul solo yéen média bi tamit aussi nit bu woowee nit pour yàq seen média yi ngeen fexe ngeen bañ parce que moom dina da ci am bàkkaar mais itam mu ngi ci am bàkkaar mm-hmm. nit bu waxeetee wax bu ñaaw ngeen xam ni kii dafa mer wax wax bu demee nii mm-hmm. ngeen bañ ko wone parce que presse bi tamit aussi ñoo mën a média bi ñoo mën a defar mm-hmm. mais tamit aussi ñoo mën a yàq parce tey léegi nit bu xëy da ngay nekk si téléphone di xool lu ci xew kon tamit yéen tamit ci benn côté bi tamit dama leen ciy ñaax ngeen di moytu nit bu waxee wax boo xam ne nekk kilifa wala mu nekk sax amaana nit ku wax mu juum dama leen di ñaan ngeen fexe ngeen bañ ko wone pour sauver ko moom parce que accident laa meen jafe am sauver ko moom ba pare sauver ki nga xam ne moom la ñuy waxal loolu parce que léegi site internet yi da ngay gis ne léegi dara doot ci dañ nit mën a nekk xale léegi suba yàlla def ko kilifa. Mm. ñu génnee loo xam ne ci moom après ay nitam bu gisee ni ñu sëg wala doomam. Mm. waaw mën a nekk poson boo xam ni mu ngi ko def tey mais ëllëg doomam mën a dem ba mag mu nekk poson bu koy lor. Mm. te loraange boobu yoroon ci bokk. kon àdduna rafetaay rek moo ci am solo. nit du dara. àdduna dafa gàtt. àdduna dafa gàtt. wax nga ko léegi nee nga nee bokk nga ci ñi nga xamante ne ñoo ko jàngal. ñi nga xamante ne mooy bëri. yaa ngi jour bi nga Moussa Dioum ñëwee bëgg a ànd ak si maa ngi fàttaliku lépp parce que moom yàlla dafa def dafa ñëw ci man rek tàkk ma dafa gis sa rek mu neex ko waaw mu nekk koo xam ne ma sawaroon ci moom nag aussi waaw Moussa Dioum boo xoolee suñu bëri benn la wallaahi dañ daa dem ba suñu bëri ñaar yi te day neex il faut ma génne yeneen facet pour war ko mun a pour mun ko mën jaax mais dafa demoon ba suñu combat sax dina xam nga entraînement dina neex vraiment mm-hmm. waaw champion man nag ku ko dem séntu fa sori laa woon mm-hmm. di ñaaxaat aussi sama mbokku mbër yi mm-hmm. des fois la ñoo xam ne ko combat koor gi bu ñëwee xam nga làmb tax duñu woor làmb dafay jeex te jaamu yàlla bi day continuer du dëgg te entraînement moo gën a métti julli waaw dama lay wax ni nag koor moom yemul ak lenn ñu gën a xam ne ay ndaw lañ sport la mais nañ delloo suñu bopp bu baax ci jaamu yàlla suñu borom si na lu am solo la su ma juumee nii xam doomu aadama laa damay juum lu ci rafet ñu xam ne yàlla suñu borom la merci jërëjëf